responsable Pastef Dakar di Abbas Fall nekkatul premier adjoint au maire bu ville Ndakaaru ab soxna suñu naan Ngone Mbang moo ko wuutu. sant euh, l'honorable député maire pour confiance bi mu am ci man. ndax man rek nekkuma jigéen ci conseil euh, municipal bi 45 jigéen ñoo fi nekk kon donc tey bu ma tànnee jox ma poste bi sargal na du ma ne jigéen ñi ci conseil municipal bi mais jigéenu dakaar yëpp tey ji la maire sargal jaarale ko ci man di ko sant di ko gërëm di gërëm tamit conseillers municipaux yëpp toute obédience politique bi parce que ñun ñëpp benn lañu dañ fi nekk pour liggéeyal Dakar waaye loolu la ñu fale kon euh, dañu war a bannir suñu kas euh, toute discussion politique au sein du conseil municipal xam li ñu fi indi li ñu fi indi mooy liggéeyal Dakar waay. mu nekk wote woo xam ne respecté li di parité moo ko waral. parité bi euh, respecté nañ ko lii am tey du décision boo xam ne le le maire de Dakar moo ko jël du également le conseil municipal moo ko jël dañu conformé wu ci loi moo ñu moo dogal lii am tey. ndax euh, cour suprême moo ordonné à ce que ñu reprendre bureau bi te ñëpp a xam nañ ne loi dañ ci war a dañ ko war a respecter bu ñu conformé wul tey ci loi bi lépp loo xam ne conseil municipal bi dogal na ko préfet da koy rejeté. muy ay wote yoo xam ni ndogal lii ki ko jël mooy cour d'appel bu Ndakaaru Paté Ba mooy deuxième adjoint Mami Awa Dieng topp ca.